sëriñ bi nag ñu fexe ba nekk si taxaw seen taxaw bu ko defee ñu lu bëgg dañu la d'accord lépp luy wane yàlla ak yonent bi sëriñ bi ñu fexe ba ne kenn bañ si raxas fexe ba ne kenn bañ si raxas suñu ko defee lépp lu la ko ñu xalaat daa ci sëriñ bi dana wax ne nga xam ne yàlla ak wax xereñ la te boo ko seen yoon ak xereñ mooy mu dundee ñu si yàlla kenn ko sa yéen sa ñu di ko wutale lu bëgg di ko wutal di leen borom ba xoolal ak di waral moom yàlla si boppam moo uddul bokkal boppam mu ngi yàlla dogalul dara wala uddul bañal boppam ak xale ñu naan tax na mu jël na dëgg yëpp def ko sa biir la bëgg jël na dara yëpp def ko sa biir la bëgg boo loolu moo wax boo saxee sa la bëgg te yàlla ko yëpp sax yow lépp loo bëgg te yàlla di ko am man waaye képp ku sax sa dara gën te gaaw la gaaw génn sax ak ko mën dina sax seen yàlla ko def rawatina yoo xam ne tey la ñu nekk si bàyyi boo xam ne yàlla la ñoo ko am fo suñu képp laay katte ñu ko ay jaama suñu képp laay katte ñu ngi wante ko lépp lu ñu daal ko te xoolee ba nga xam ne moom la yàlla xotti rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jaas ak saxaaba yi si maam dugg si moom moom ñuy doomi sëriñ loolu dinañ jàppale lool dinañ xam ne sëriñ bi yërmaa yu bari woon la lool waaye ku fi dul moom du soxla si moom dara nit ñi rek ñu am si moom lay jël kon nag ñu fexe ba fi boo ngi may sëriñ bi dara di may si rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dara di may suñu borom dara ñu jéem a taxaw fi boo ngi bokk islam bi te delloo suñu taal bi boo ko seetee rek sa àdduna sëriñ bi sa àdduna dina woyof bay te sa nekk nag yow na xëy loolu sëriñ bi waxoon sëriñ bi am na ñaar si rajo waxoon na leen ko ñu fàttali war leen ko daa bis sëriñ bi di waxtaan. wala muy jàngale. ñoom daal mu ne kookee ak ñetti xaritam mm. yi. maanaam xam ne xase boobee demee. ah kon loolu man de xam naa sëriñ bi wax ne ba jigéen sëriñ bi dañuy nekk. ma jógee dafa doon ko daa moom am ñetti xarit. ñu ko guddi yoon ne ko si àll ba ma lay fa am gàttal. daal di gàtt bi nag. dama jaayante yàlla moom mos na wax ne fas yéene ko xool sëriñ bi ak ñu koy jàng ñaax si loxo bi ndax lu fi jëfe jaamoo ñaax gaa yi ñu mos na wax ne dëkk fas yéene ko xool ak moom dañu ñëw si nit ñi fekk xam ne ñu ne moom ko ndax damaa yónni xam ne maa leen ci ko kooku jàpp si loxo ba suñu yoon wala li nga wax loolu lépp boo si gënee waat yow am naa fi ñu wax li nga wut waaye fi laa mën a yem ak yow mu bàyyi ko def ci xarit bi ne leen fokk boo ko gën mu ko wax dara maa leen ci dëgg mu ko dëgg kooku jàpp si loxo ni ko damay ànd ak yow ba kër yi boo ko mucc wala ñu am koo xam daal ma tàggu yow boo xam ne sëriñ bi daal di ko tii bi xaritam ñetteel bi nag mooy jëf foo jëm yéen a fay ànd ci du ngeen tàggu ko faaw kon nag suñ jëf loolu nga xam fu ñu jëm dañ fay ànd ak ñoom te duñ tàggu ak ñoom ba faaw war na noo xool la xëy sa loola di gont sa te lépp loo xam ne jàpp ne da koy yàq ñu daw tey wattandiku loolee nan bàyyi xel fu ñu toll ni musiba mun gis balaa buñ gis mm, coono buñ gis rek ñoo ko fàggu ñoo ko fàggu ndax doomu aadama waxtu muy tooñ boroomam ba mel ni kuy liwaatoog boroomam te suñ borom na mu koo jéggal wala mu na mu koo suturaal bu ëllëgee yow man xëy am mu jël tuuti salam ko tooñ musal ko ko fii fi àdduna ngir mu deltu ginnaaw kon coono yi ñuy gis ak musiba yi yëpp suñu njubati rekk moo nu ko yóbbee kon ñu ñëpp nañ delluwaati tuub delluwaati takk suñuy laxasaay te toppaat si sëriñ bi na mu ko bëggee te mooy tege si aw yoon rek te xeeti fooy yi ñuy def ñu wan ko ginnaaw xeeti jaaxaan yi ñu wan ko ginnaaw xeeti yi di nuru dara te doonu ko it ñu wan ko ginnaaw suñ ko defee dootuñ gis mukk lu ñuy lor tey dootuñ gis mukk lu ñuy lor ëllëg waaye feeg ñu ngi nekk si di mooy yàlla feeg ñu ngi nekk si di caaxaane digal yàlla yi lu nu suñ bakkan jëfloo ñu jëf ko lu nu bànneex jëfloo ñu jëf ko lu nu àdduna jëfloo ñu jëf ko fu nu seytaane woo ñu wuyu ko fa nu wóor ni kat bis bu set gis lu nu ragal te duñ sa mën a bu set ñuy gis lu nu bëgg yi te duñ sa mën a jot mukk sëriñ moom day wax ni dox na suñ digganteeg seytaane waaye ku mu sa diggante ak seytaane bu mënut laa yàqal boo wommataatee sax noskat jébbalaat seytaane yoonu sëriñ bi nekku si loolu nan ko bàyyi xel fu di toll ñoo ngi leen di dénk képp ku fi nar a dee toog si jotaay di wax ay jaaxaan di wax ak neen di wax lu sa yoon néew wala nga yàq derum mbokkum jullit na nga gaaw si lu gaawul bi di saw làmmeñ jëmale ko si jàng alquran jëmale ko si jàng xasaay jëmale ko si ak tuub moo ëpp ak moo ëpp ak mucc nan delloo wattandi ko bu baax tey daw lu nit ñi bëgg naa ko daa war a daw ngir fàggu ji ko waaye lu nit ne ragal naa ko daa war a daw ngir sori ko ku ne bëgg naa àjjana yàlla jëli ku ne bëgg naa ngërëmul sëriñ bii daw ko waaye bëgg naa te doo wut du tax a ragal naa te doo dawit du tax a mucc loolu nañ koy bàyyi xel wattandi ko am foofu adduna na solo lool waaye damay ñàkk-ñàkk solo kat ku fi bëgg dara dangaa solo lool door koo am te loo fi am ak coono boo sama dem balaa yàgg nga ñàkk ko ba ñëpp xam ne ñàkk nga ko kon ku ne leen ëllëg yow man xiyaam di fa am loo xam ne doo sonn si nuuf laay ngay nekk ci biir ak ci biti te doo sonn fii si àdduna kookee mu ngi lay war mu ngi lay wax bàyyi leen foofu nan bàyyi foofu te jaamu ji yàlla nan bàyyi am foofu te jaamu ji yàlla nan bàyyi ñoo ngi ñaan yàlla xasida gi ñu fi doon jàng mi Quraan yi ba fukki bi mboolem si di barke ci zaahir ak ci ko suñu kaw mm-hmm. ñoo ngi ñaan yàlla it xasida gi ñu fi doon jàng mi fukki ko Quraan yi suñu borom takk ko lépp ñu say joxal na ko sëriñ bi addiya mm-hmm. ñoo ngi ñaan yàlla koor gi ñu teewe ren ñu teewe koy ati at te kenn bañ koo wuute te at mu mujjee ñëw si ñun gënal at ma jiitu woon